war a régler définitivement moom la ñuy ñëwaat euh, amaat les mêmes problème wax nañ ko ba sonn e keroog même boo déggee la déclaration du président de la république danga nga ciy gisaat ne ñun li ñuy tere yëpp moom moo fa feeñaat yow ñoo ngi ci biir benn crise nga xëy annoncé trois cent cinquante milliards alors que ñun boobu ba tey dañu doon wax ne jàpp nañ ne li tax suñu politique publique yi les effets escomptés duñu ko ci am mooy parce que dañu manque planification ak évaluation mhm. dañu on da nga koy basé rek maa ngi koy wax keroog ne am na boroom xam-xam bu wax ne les chiffres son des êtres très fragiles qui si on les manipule peuvent te dire tout ce que tu veux entendre ñun on a on mesure les impacts sur les chiffres euh, chiffres rek la ñuy kii alors que du ñu mesurer impact yi réellement yi nga xamante ni moom lay am on est dans une crise une crise c'est une grande opportunité boo xamante ni war nañu permettre mu révéler li nga xamante ni moom mooy les failles ñu tekki suñu bët mais ñun on est champion du colmatage colmater rek pour régler un problème ponctuel boo xamante ni daf lay dabaat ci kanam on est dans une crise nga xëy nga annoncé milliards alors que à côté am nga ay instruments yoo xamante ni nee nga nee nga moom moo ñëw pour régler les problématiques de jeunesse dans cette crise justement où on a besoin de sérénité et de lucidité on voit un ministre de l'intérieur boo xamante ni fidèle à sa sa formation initiale apparaît comme un procureur boo xam dafay chargé comme pas possible oui, il fait du réquisitoire <laughs> c'est incroyable dans cette crise là on voit le ministre de la justice nee naa ko boo koy waxee woon ci réew mi sax mu tane waaye ca biti nga ko waxee di wax loo xamante ni kenn comprendrewul fan la ko les on appelle à l'apaisement lui il accuse une frange importante boo xamante ni mësuñu am soxla ba laaj ko ko frange la boo xamante ni déboussolé daal di choisir loo xamante ni dafa waroon nekk passion ci ñoom ñu mujj def ko métier amuñu garanti boo ci gaañoo tey nga dee boo ci gaañoo dañ lay defal téléthon li ci feebar fi mu ne nii wala li ciy bëri 8000 licenciés lañ xaw ma ñoo xamante ni aujourd'hui daanaka bi ñu ñëwee ci Covid bi xam nañ ne ci incertitude rek la ñuy xëy di ci gont et c'est le ministre de la justice qui sort totalement ci ci ci zone périmètre am di wax loo xamante ni kenn xamut leen mais justement c'est dans cette crise aussi où on voit un préfet boo xamante ni qui demande à ce qu'on charge les journalistes nee na nañu chargé ñi nañ tasaare fii qui appelle le ministre de l'intérieur à haute voix kenn xamul ce qui s'y passe au moment où on demande à certains d'être sereins on voit de l'autre côté des gens yoo xamante ni aussi dañuy provoquer souvent yoo xamante ni war na mën alors ce qu'on attend de l'autorité c'est justement de la grandeur ce qu'on attend de l'autorité c'est le dépassement ce qu'on attend de l'autorité c'est que à chaque fois bu nit ñi jàkkaarloog moom que tu sois pour ou contre nga xam ne fii kat sama xel dina ci dal justement justice boobu dafa nekk en cause comme ni assemblée nationale nekkee en cause comme ni institution yëpp nekkee en cause institution yi boppam dafa jot ñu def taxaw ci seetlu xam fi ñu bëgg a dem yan type d'institution ak ban continue institution justement la question du profilage je suis jeune sama maam moo ma yar moo tax du ma ci mag ñi dama xam seen njëriñ ca caajaay dama xam seen njëriñ njëriñ dañu am njëriñ en réalité il nous faut une solidarité de génération pour que ñoom ñu mën ñu accompagner da ngay gis mag bu màgget ci kër di ñaan bañ a dee parce que xelam dalul ne bu ma dee njaboot gi du tas mag ñi fii tamit man damaa jàpp ne de très bonne foi que bëgguñu bàyyi parce que xëy na xale yi rassuré wuñ leen niñ li ñoo ngi wax fii léegi ci saaga yeeg yooyu mais buuba yàlla sedd na ne man mii di wax ak yow tey je suis copieusement insulté su par des gens yoo xamante ni ay kilifa lañ yoo am sax ndomba tànk dañuy dem ci seen page Facebook daal di la fay attaquer ouvrir une brèche boo xamante ni pour que les gens tapent sur toi alors que da toog fii di wax loo xamante ni jàpp nga ne bu ko président de la république déggee sax mu mën ko jëriñ mhm. su ko ministre déggee mu mën ko jëriñ mais da gis da ngay invité fii ministre sax mu naan la da nga ñu contre mais ñun ministre yooyu la am léegi ministre yi ñu am léegi mooy ministre yoo xamante ni bu ngeen ñëwee fii bala ngeen di dugg si dañ lay ne la sa waay discours bi ñuy tenir foofu moo tax président de la république aussi na xam ne gars yi mu àndal ci bëri dañ koy nax parce que double discours la ñuy am. Mhm. ci suuf li ñu lay wax ak li ñu lay wax ci kaw bokkul. mën nañ la attaqué nii nga génn plateau bi ñu génn fii ñu ne la Pape Djibril li ngay wax d' accord naa ci mais mënuma ko wax. et c' est ça le problème que nous avons on se dit la vérité depuis 60 ans ci loolu la ñu nekk et le président de la république n'a rien arrangé. Macky Sall depuis 2014 dañuy ñëpp dégg ko mu ne kii perd sa localité perd son poste justement c'est une manière de demander à tous les fonctionnaires de ce pays d'aller faire de la politique bàyyi seen poste yi moo tax ajjuma la ñuy quitter Dakar wala alxames dem politique yi mais altine wala talaata la ñuy dellu si waat Dakar nooy liggéeyee loolu mooy bu njëkk bi mu ne léegi tous les gens qui qui qui qui qui perd sa localité perd son poste justement ci contrat de performance bi la Cheikh u Sy di xaar Charles di la ci xaar ma la ciy xaar ñun ñëpp ñu leen ci xaar ñun sénégalais yi nga xam la finalité de votre action publique c'est pour nous notre mieux-être mais ci contrat de performance boobu dafa am beneen contrat politique bu nekk ci kaw. Mhm. justement il faut que nga joxe ay ay résultats politiques politiciens. moo tax la question de la jeunesse nee naa leen bàyyi leen di jox jeunesse bi pourquoi forcément on doit confier le département de la jeunesse à des jeunes pourquoi je ne le comprends pas je ne le parce que déjà le plus souvent ki ngay tab dafay bokk ci parti à l'intérieur de sa parti rek am na ci ay ñoo xamante ni il se regarde en chien de faïence ak moom mm-hmm. le président de la République dans cette crise la reçoit au palais maire ak cogère mais quelle est l'image que tu renvoies à la jeunesse de ce pays qui n'est pas encarté qui fait peu cas de la politique de l'action politique moo tax man d'accord naa ci que les jeunes dem assemblée nationale d' accord naa que les jeunes ñu jox leen ay postes mais quels jeunes aussi. parce que gis naa fi jeunes yoo xamante ni dañ leen a jëlal local fayal leen ko tegal leen ci ay ordinateur ne leen vendredi Pape Djibril fal bu commencé rek attaqué leen ko ñoo am ay pseudo compte ay compte fictif nekk ci internet bi lu dul saaga à longueur de journée te man xam naa ne ay kilifa leen koy defloo te bu ñu leen koy defloo duñ ko defloo seen doom loolu aussi c' est la de ce pays. Mm-hmm. moo tax ma jàpp ne 60 ans dañu fi nekk rek di naxante. di nommer nit parce que politicien la di nommer nit mu wóor la ne amul xam-xam nommer ministre yoo xamante ni bu ñu leen wooy fii débat du ñu ñëw mukk parce que lañ leen jox mënuñu ko nommer koo xamante ni su xëyee jël chef de cabinet boo xamante ni politique rek la nga jël ay nit yu xarañ indi leen ñu am compétence nga teg leen ci côté politicien boo xamante ni saa bu xëyee di remettre en cause sa légitimité parce que bi muy taal pëna di sànni xeer yow nekkoo fi woon auditons nos nos directions pour voir le profilage qu'on a regardons les contrats spéciaux comment ils sont combien ils sont alors que compétence bi nekku fi alors que ñoom ñooy cheville ouvrière on a des directeurs yoo xamante ni fii faale wuñu ministre yi leen yilif ñeme wuñu leen a sax woolu xam naa fi ñoo xamante ni réunion de coordination sax du ñu dem wuy ji ministre yi mais qu'est-ce que nous voulons mm-hmm. il faut qu'on règle définitivement ces problèmes sinon yàlla xam na ne 2012 dañ ne woon plus jamais ça parce qu'on avait 12 morts mm-hmm. wala voilà, plus de douze morts ren laps de temps on a combien de morts ay jeunes ay jigéen génn ñëpp di manifester mais je vous assure si on ne règle pas définitivement ces problèmes là bàyyi caaxaan yi nga xamante ni moom la ñu nekkee def planification def suivi évaluation on règle définitivement certains problèmes mais bis repetita dinañ delluwaat si fii am naa ñun sax mën nañu cee bañ a bokk ñeneen ñooy ñëwaat toogaat di débat di waxtaan ak di waxtaan ci problème yi franchement allez euh, ñu ñu ñu ñu